dalli nag jàmm ci tas info abonel ngir dara bañ a di laal jërëjëf seen ànd seen seen youtube tas info xabaar yi suba gi xabaar bu tiis dal ci ki nga xam ne moo di kii di ah, Pape Alé Niang moom moomee nag xamle xabaar ba ci ni kat eh, inna lillahi wa inna ilayhi ci ni woy juróom bu moo fi daal di eh, bàyyi ko ñu nekkaate mbir moo xam mu tiis la dal ci kaw moom muy di Pape Alé Niang ñu ngi koy ñaanal sunu borom xaare ko àjjana firdaws yi ci way juróom wu góor woowu naka noonu ñu ngi koy jàll ak mboolem ñi nga ñoo di njabootu góor ki moo di kii di Pape Alé Niang naka noonu am di jàmm yi ak it ñi nga xam ne ñoo di waa parti boobu nga xam ne moo di Pastef nga am ne moom mii di Pape Alé Niang nekk na ko xam te ni ku leen doon jàppal tànk la te it ci lu bëri bëri loo xam te ni daan na ci yëngatu moom Pape Alé Niang kon Pape Alé Niang moom. ñu ngi koy masawu ci tiis yi nga xamante ni daal dinay dal ci kaw